à demain incha allah. <laughs> incha allah merci beaucoup. merci ko di la bu baax. xam naa ne yenn saa yi du yomb. <laughs> macha allah tu tiens bien <laughs> fil te dafa am solo. boo koy masawu lu xew bu ko jot. mu yenn saa rek yenn ki yeeg yooyu day am. yenn yan yow kii xale la xale la xale la il est de jeune 10 10 90. kon moom mii nii nii. yaa ngi tungu de bi ñëwal. la chanson originale. Khady Diouf sunu yaay ji ñoo na ah. ñu bongo maan yi bu ne may na dégg bongo woman acca man ak góor Medina Sabax est du ngeen ñu préparer une écriture lu Nabou Création wax dëgg ah. yàlla comme ça ngeen jëlaale ñu ñu ñu daal di koy remercier waale moo ma habillé man ak ajaratu euh, Ngoone Saliou Diop Ngoone lacrymogène Diop lacrymogène kenn ma leen ko yéene fan yi fu ngeen naan seen tëj bi nag wala looy tëgg nii lan ngay tëgg nii fanaan ndeysaan man boo yële fa lay fanaan. mais may ma may ma chéri boobu may ma boobu. paasal may ko boobu la tam booy bul di ko deete boobu dafa neex ay. nan nan nan nan tan ngom no nan nan tan ngom ay ay chéri booy bul di ko deete. kii kii moo gën a bëgg. ay man man papa. mais yow loolu dafa neex. dafa neex kañ. yow bu ma daagoo ma ñëw sa kër loo yow yow bu ma. ndeysaan bu ma daagoo ma ñëw sa kër loo am may ma ko. ay lu ma daagoo ma ñëw sa kër loo xam mooy ma ko seen maa ko. ndeysaan. na bu yaa mën a tëgg nag. Sénégal yaa gën a yow bànn nga nag di. yow lii dafa neex. moom la ñun koy stressé bu fi ñëw. mi ngi nii. sama nijaay bu dee guddee dee. keroog fecc nga fecc fii. rëg rëg bu jaay la boobu rëg rëg bu kii bi fay laa koy fecc dama ko fecc ci kanam xale yi. mais chéri booy bu ñu tuddee tey lañ wax ak bàyyi bàyyi naan sàngara. waaw ah, ah, ah jibbi bàyyi maas sàngara kenn ko jaay doole. nakati nakati la sax sàngara. sàngara sans limite ban wax nañ dëgg de mënoo ko tëj noonu. <laughs> ñun café Mbande Actu <laughs> xanaa xamoo leen ni bu bu caméra yi fayee ci la ñuy gën a neex. mooy yow ñii xamuñu xamuñu suñuy coulisse sax suñuy coulisse a gën a garaaw. ngoone foo jëm ak ñun. ah bàyyi naa ko. volume bi ngay yow pour lan la. bàyyi naa ko ndaamiloo laa bëgg a ñëw ndaamiloo Siré. waaw ah, yow ñëwul ñëw loolu dafa neex yow. l'écriture de Nabou Création s'il vous plaît. waaw. yéen dee leen avance. jërëjëf <laughs> waay. <laughs> Eh eh <laughs> gestion bi. jërëjëf bi. jërëjëf bi jërëjëf bi neexoon na de moom da ngay mel ni waa Sorano rek. jërëjëf bi jërëjëf bi andi andi andi. <laughs> playlist ba sama Sénégal neex na boo neexee fecc boo neexee way. bi ma ëpp mbalax nag mbalax mbalax mooy sax. xoolal bi fekk nga fekk nga am xaalis nag ba commencé def nii xool di am xaalis nag def nii. ngoone mooy bëgg salsa wala. ànd la tuuti bu salsa lii ci xale la. saa ba respecté ma naka bëgg. waaw di aju. neex ñi moo ndey ba nga xam sa baay. ay waay on nga ko subhanallah. dangay émission dañuy xam nga ne Diomaye baax na fi ñaanal leen ko taloo leen woon di de. jamono bi maa ngi ci lakk ma ne kii ñu koy saaga kee ma ngay dem di xool fan lay aw ñu ngi bàyyi tali bi yàlla nga gudd fa amin waay ah, ànd bi yàlla yàlla na yàlla na gën a yàlla waaye tiitu leen ñu xëy rek bloqué émission bi <laughs> tiitu leen non je euh, je je veux prendre des non on veut moom mais xam nga lan la lan mooy sama problème man dama bëgg sans limite ndeke. wallaahi. j'adore ce plateau. je vous ah, adore les filles. je vous adore euh, <laughs> la grande famille mm. bu ñuy demit dañuy teg yii de yu neex yi. waaw day amaat leen ma ah. beneen pour bu ñuy tëj pour bu may tàggatoo rek nga teg ko. ban nga bëgg ñu dem tuuti boo ma indil baax na na saf rek. nga jaay baaxul déedéet c'est pas les <laughs> ayca jërëjëf euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jëfal ñi nekkoon ci plateau bi yëpp Pape Sow moo fi gën a yaru ñu ngay sant di ko gërëm bu baax a baax a baax alors di jaajëfal euh, ah? Ngoné Pape Assane euh, ajaratu mami Cheikh Ousmane mi waroon ñëw xam naa dag ñu koy fay rek suba Cheikh bi incha allah di remercier équipe technique bi nga xamante ne ñoo nekkoon ci ginnaaw di leen jaajëfal sans oublier nos inconditionnels waay tàggatoo yooyu tey baal leen ma tàggatoo ba suba ak jàmm lii dafa neex. mën naa ne xoolal waaw waaw. aywa caa ji rek yàlla kii yàlla yàlla. feetu waa kay. may ma sa jëf. may ma euh, Régis bu ma kii rek waaw kay numéro Nabou Création mu ngi jàll au bas de votre écran ñëwal. c'est pas les marabouts c'est Dieu woy sama ndey jax maa tax ko duma di sama dërëm woy sama ndey tiriri ay tarara tiriri maa ngi ñëw li ngeen di def maa ngi ñëw on t'adore ma yàq rendez-vous demain inchallah c'est le dernier numéro de la semaine très bonne journée accompagnée de nos programmes jërë ngeen jëf <laughs> Kodafi TV <laughs>